acca Boy Ndiaye ñu ngi ziar. waaw ah, ñu ngi delloo ziar biir as. waaw gis nañ sen match bi bon d'accord. accord défaite premier mi-temps yéen mëna 1-0 gis nañ équipe bi am ben engagement en premier mi-temps en deuxième mi-temps gis nañ équipe bi nak sans visage touti quoi. ah mais xam rek des fois football mo démé ni quoi des fois da ngay ñëw tek ben schéma en place nga ñëw équipe bi déjouer lool non. en fait deuxième deuxième mi-temps bi dañoo dañoo dañoo ñëw taxaw suufee de trop quoi or que dañoo waron téebal bi ci kaw avancer pour am chercher deuxième but.

dañoo bëggoon dañoo bëggoon tey ji assurer maintien bi fii nii dañoo bëggoon tey ji assurer maintien bi fii te or que mënoon nañu ñibbee ak un point bi hmm. bu ñibbee un point malgré moo gën mais en voulant gagner on a perdu. Hmm. football nag moo demee nii quoi. tey nag ban état d'esprit ngeen di joué ah, rek. Hmm. au pire des dañoo war a gagner foofu parce que ñooy recevoir pour mën a assurer suñu maintien football nag. loi des sports dafay am mais des fois ñu ñooy dem xool li yàqu bu ñu demee lundi wala mardi ñu rectifié waat ko préparer suñu match ak douane ñu jël ko match par match.